jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñuy topp ci Medina TV ci Sénégal waaye ci àdduna wërngal këpp ginnaaw bi ñu leen nuyoo mbokk yi ziar leen ñaanal leen jàmm bu baax a baax di ko sàkku ci yéen Medina TV di leen jaajëfal ci bi ngeen ànd ak moom ngir lépp loo xam ne actualité la ci réew mi ak ci bitim réew ngeen mën koo am à réel ginnaaw bi ñu leen nuyoo mbokk yi kon dañuy ñëw ci nouvelle bu neex a neex bi nga xam ne kon moo tàbbi ci équipe nationale a rek moom mooy équipe nationale ginnaaw rek bëgg gi nga xamante ne kon saa su nekk ma ngay fësal ne bëgg na ko équipe bi waaye rek dévouement bi nga xamante ne kon mi ngi ànd ak moom saa su nekk rek su nekkee si biir terrain bi moom l'international ni ki tey la soxnaam si di Mariem Aw Diatta dal di fësal ci ay compte sociaux wam ne rek am na kon ab doom bu góor ginnaaw kon bañ leen gisee ay weer yi la passé kon ñu nga doon laam-laamee grossesse boobu ginnaaw yenn photo yoo xamante ne woon fuité woon na mu mel ne sax loolee moom Crépin moom moo nga xamante ne kon convoqué woon convoqué woon nañ ko ci jëm rek ci éliminatoire euh, Coupe d'Afrique 2025 kon ñi ngi ko doon amal mu xamal la kon soxnaam dafa nekk en terme te ne kon moom mooy accouchement bi ginnaaw loolu kon moom euh, Crépin moom mais mu mel bi nga xamante ne kon jaaree na ci Sadio Mané ak biu coup franc ba na kon ak accueillir na ki nga xamante ne kon moom mooy petit prince am di le prince Diatta di doom bu boo xamante ne kon soxnaam si di Marème indil na ko mu nekk nouvelle bu neex a neex a neex moom Krimpong moomee euh, na ak soxnaam soosee ab euh, diir rek amuñu mu mel ne kon nouvelle ba tàbbi na ñu koy félicité waat bu baax a ko ñaanal kon bébé bi na dund ta am ndey ak baay waaye rek lépp loo xamante ne bëgg na si moom suñu borom daal di ko koy defal te bébé bi itam daal di indaale xéewal bu bare bare bare euh, ci li nga xamante rek moom mooy dundam ci loolu mbokk yi wéy leen di topp Medina TV partager abonné like leneen loo xam ne amaat ko ci information ñu ñëw ci ak yéen ci nu mu yaatu jërë ngeen